Établissement Baye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement de dernière technologie en ce qui concerne les finitions de verre, polissage prestige, biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Baye Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Amadou Bamba, Dakar. Téléphone 864 75 15. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërë ngeen jëf ci bàyyi xel gi ngeen di bàyyi xel seen euh, chaîne de production Tawfekh production TP di am ci euh, via réseaux sociaux yi moo xam ci plateforme YouTube bi rawatina ak yeneen plateforme yi waaye lu ci mën di am dinañ ñu bàyyi xel bu baax ci YouTube bi euh, ak suñuy vidéo tey jii niñ ko baaxoo defee ci ndimbalu sunu borom ak kàttanam ñu ngi fii ngir décortiquer li gën a fës ci actualité bi xew ci ay bés bi ñu koy dooree moo soxla wàllum euh, gis nañu la euh, sortie euh, yi nga xamante ni moom def na ko moom kii di Maître El Hadji Diouf cette sortie la jëm ci màggalu Touba Serigne Touba Khadim Rasoul Euh, fësal ci ay kàddu mu nekk loo xamante ne nii nag euh, gis nañ nit ñi niñ ko jàngatee euh, ma jàpp rek ne waxoon naa ko ci actualité bi passé nit ñi bu ñuy waxati ci lu jëm ci diine nañ ci maanu ndax diine c'est une affaire boo xam ne dafa xaw a sensible mbir la mu daw yaram boo xamante ni ku jug war cee mën a wax bëri waan na réew yu bëri am jax-jax am fitna la ko gën a fësal gën ko indi bokk na ci waasoo ak mbirum li nga xam ne moom di dugg ci diine gis nañ bu baax a baax ci jamono euh, yi nga xamante amoon na ci euh, euh, lii di rek taarix ak réew yi nga xamante amoon nañ jafe-jafe ak religion ba na fa demee woon jàng nañ ko ci leçon yi amoon ci histoire bu France ak yeneen réew yoo xamante gis nañ diine ni mu fa inee jax ba tey ji problème mu Israël ak Palestine mbirum diine bokk na ci li nga xamante gën na ba tey ratax boobee amul ak yeneen réew yoo xamante am na fa ba ci sunu sous région bi au niveau de la Guinée ak yeneen réew yi nga xamante boo fa demee ak le Mali gi même Euh, tout récemment nga xam ne amoon nañ coup d'état gis nañ fa coow loolu ak wàllum euh, li nga xam ne am na fa ci diggante ay xeet ma jàpp ne loolu ngir bañ ko yee mooy euh, lii fii ci Sénégal suñu borom may ñu ay mag ñu baax boo demee Medina baay mu mel ne euh, tey yaa nga Touba nga dem euh, fële nga xam te moom moo di Touba mel ne yaa nga Medina Baye nga dem Ndiassane mu mel ne yaa nga fële ci Tivaouane nga dem Tivaouane mu mel ne yaa nga Ndiassane kër goo ci dem ci kër doomi soxna yi day mel ni sa kër nga nekk ndax Sénégal dañuy def li ñuy wax naan wax tax simi xoo bi Abdullahi jamiha wala tafaraxu dañu ngoyantoo ci buumu yàlla gi di mbokkoo ñoom ñëpp doon benn yaakaar naa ne tey jii ñoom ñoo am abilité ngir wax ci lépp loo xam ne moom moo jëm ci seen xew-xew ndax seen i maam ñoo leen ko fi bàyyil ñu donnoo ko seen i maam seen i sët ñëw di wéy liggéey boobu kon képp koo xam ne nee naa ko wax naa ko keroog da ngaa jàngoon Molière wala Molière wala Descartes wala euh, euh, ku mën di doon César keneen yamal ci loolu te ba ñu dugg ci luy diine màggalu Touba nag Serigne tubaa moo ko moomal boppam du xew kenn njegam le chef de l'État luy même waxu ci da caa maandu ministre de l'intérieur waxoon na yàggul bañ ko ca laajee da caa maandu képp ku ji koo xam ne laaj na ni ci ab journaliste tamit posé da ca question di taskatu xibaar yi sama naataango amul fulay fayda ne loolu kat du samay mbir ña ko moom ñoo cay wax. amal sa fula parce que le na fekk demande des questions yow yaay répondre kon ku dem Touba ku demul Touba te Touba dina dem dana am wax nañ ko ko am na ñu ne ko euh, Touba ba muy am xamuñ la daan nga ñëw màggal ba ñibbi kenn du la yëg kon loolu lépp tontu boobu bu ko ci amee moom moo ko tooñ moo tooñ boppam moom ak mari taw ñaan nag seen loolee ñu ci am ci tontu ñoo tooñ seen bopp seen yoon néew ci diine nañ ca maanu wasalaam ñi ca war a wax wax ca dëkkub sëñ Touba waa ka suñ Tuubaa ñoom ñoo cay dogal sëriñ Sëriñ Muntaxa Mbàkke moom moo am habilité wax ci lu fay am te bu koy jotli sëñ Bas la naan jotli ma lii képp ku ci mën a tënku tënku ca mbirum Touba nag nañ ko bàyyeek waa Touba mbirum Medina Baye ñu bàyyi ko waa Medina Baye ndax këri yi ñoom ñëpp benn lañ ñoom ñëpp kenn tasaaru ci ko ci dugg ñoo bokk seen benn maam ñoo bokk dina ji ñoo bokk alxuraan ji ñoo bokkul lépp li nga xam mooy doxal te toolu l'islam bi te loolee ñàkk la bu kenn warul ñàkki solo nag ma bëggoon a jeexale bataaxal bi ci point boobu mooy nit ñi taalibe yi nañ leen gën a soññ ñaax leen ci nag euh, gis nañ bu baax sang bi ni mu ko waxee keroog Serigne Bassirou Mbacke yaa na fi yàgg te mat loolu ndaw ci nit ñu fexe ba dëppoo ak ndénkaane waa kër docteur lépp loo xamante ni mooy tax tey jii euh, gis nañ bu baax ak coow li jub bu ñu kenn liñ naan ku lay jam bu fexe ba mu wut la bu ko wala bu mu la am dañu fexe ba nañu ñëw ànd ak dal ànd ak tey te topp ndigal li